ne yonent bi moo tiim cheikh naan ko waxal gaa yi nii laa mel ca mooy allahuma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyati wal yaqutati al mutahaqiqati al haitati bi markazi al fuwam wal maa wa nuril akwani al mutakawinati al adimi sahbi al haq rabbani البرق الاستعد مدن ارباح المالات لكل متعرض من البحور والاوان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مبكي jullit yi ñu ngi leen di ziyaar ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen balwaq di ñaan yàlla boole ñu defal ñu jàmm defal ñu tawfiq fas yéene dellu si ak yéen ci charxu jawharatil kamal ànd xam ne xel ne li jawhara làmboo ci ay maani mënuñu koo ŋacc mukk mukk mukk mënuñu koo ŋacc waaye wallax njaan mu gis ndox moom kenn du ne ko doo fi wallax wallaxee faw mu yëngu kay bu ko ndox mi gënee bareet dana yëngu noonu rek la mel su ko defee cofeel guñ ci am rek moo tax ñu nekk ci di nab nabi yàlla dogal ñu jàllale suñ bind bu njëkk yàlla dogal mu am solo njëkk ñuy ñëw ci ñaareelu bind bi yàlla wan ñu ay màndarga yoo xam ne gën nañoo xiirtal ci ñu continuer jawharatul kamal bi kon nag yal na yàlla barkeel ñi ngi yemoon ci allahuma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyati walyaqutati almutaxaqiqati alxaitati bi markazi alfuhumi walmaani wa nuuri l akwaani almutakawinati l aadami yi foofu la ñu war a commencé tey waaye almutaxaqiqati dafa am ay maanaa yu ci yuñ ci desaloon keroog ci baatu almutaxaqiqati ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee baatu almutaxaqiqa indi woon nañ ci ay mbir yooya du jar ñu di ko baamuwaat ndax mu ngi ci première partie bi waaye bala ñuy dugg ci bindu tay bi dañuy yeggale baatu almutaxaqiqati lenn ci li mu wundu bokk na ci li baatu almutaxaqiqati wundu dafa wax foofu ne yonent bi mooy yaaqut wi nga xam ne moo taxqiq secret yi yàlla def ci mawjudaat yi am na juróom am na ñetti téeméeri secret ak juróom benn fukk ak juróom benn yoo xam ne yàlla mi ko def ci mawjudaat yi secret yooyu benn bu ci nekk nag yonent bi daf koo taxqiq min asfaliha ila gaayatiha su ko defee trois cent soixante six secret yooyu yàlla mi ngi ko tas ci mbindeefam yi waaye yonent bi sallallahu alayhi wa moom da koo dajale da koo dajale te benn bu ci nekk mu amee ko nu ko kenn amewul waaw mu amee ko nu ko benn mbindeef amewul bu ñu jëloon tey gàncax yàlla am na secret bu ci dénk bum ko dénk ñu koy wax secret bu njariñ jariñ am nafu jariñ da ñëw ci genn gàncax reen ba di jariñ xas ma di jariñ xob ya di jariñ meññet ma di jariñ ci genn gàncax yooyu genn gàncax dajale ko yonent bi sallallahu alayhi wa njariñ loolu noo moom daf koo dafa koo waabale dafa taxqiq li ñuy wax njariñ ci boppam nga xam ne moom léppam njariñ la moo tax musula watu bañ sànni karaw ba ndax karawam njariñ la ñaqam dañ ko daan rett di ko denc ci ay bouteille di ko barkeeloo ndax njariñ la taflitam dañ ko daan jël di ko diwoo ndax njariñ la deretam kenn mësu koo tuur dañ koy naan ndax njariñ la moom sallallahu alayhi wa dafa taxqiq njariñ kon mooy al yaqut al mutaxaqiqa al yaqutul mutaxaqiqa li mu wundu dafa yaatu bu dee ci wàllu suuf tey beneen misaal ci suuf yàlla dénk na ko secret yenu lu diis ñaata ciy tata la doomu aadama tax tabax ci kaw suuf ñaata garab ñoo sax ci kaw suuf ñaata montagne la yàlla samp ci kaw suuf li suuf yenu ci ndox ci ay yeneen ay mbir lim kenn xamul lu mu bi nga xam ne moom la yàlla roof suuf ba suuf mën a yenu loolu te jàmbatul te wonkul sirru boobu yàlla def na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa ba mu yenu ci loo xam ne suuf attanul loolu lim ci yenu buñ ko tegoon buñ ko sotti woon suuf suuf alko moo tax li mu yenu ci ay asraar moom yonent bu duy ko yenu ko ci ay maarif bu ñu jëloon mbindeefu suñu borom yépp nit ñeeg jinne yeeg malaaka yeeg suuf seeg asamaan yeeg sotti pour sotti ko pour ñoom ñu yenu ko yëppay alku yëppay alku moom jëmm ju tedd joojee rek sallallahu alayhi wa sallam moo yenu moo mën a yenu loolu moo tax yàlla daf koo dénk sirru xamlil afkaal loolu mooy dafa taxqiq ñetti téeméeri secret yi ak juróom-benn fukk ak juróom-benn daf ko taxqiq min asfaliha ila gaayatiha wa min awaliha ila axiriha moo tax mu nekk al yaquutatul mutahaqiqa moo tax al baatu al mutahaqiqa boo ko bëggee firi ci wolof da ngay sonn al mutahaqiqa mooy koo xam ne dafa waabale ya nekkoon ca la suma ba lay passé al mutahaqiqa ba noppi waabale secret yi yàlla dénk mbindeef yi du ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn kon euh, lo maanaa moomu lañ bëggoon a dolli rek daal di dugg ci ñaareelu. parti bi mu wax ni wa nuuri l akwaani al mutakawinati al aadamiyi saahibi al xaq rabbaani allahuma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniya والياقوتة المتحققة الحائطة بمركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني nee na yal na yàlla julli ci ki nga xam ne mooy nuuril akwaani mooy leeru kawnu yi kawnu maanaam ni ñu ko mën a fire mooy àdduna yi yàlla li mu am ci ay waan kenn xamul mu toll waan yi nañu rëyee kenn xamul nu ñu toll lu dul nga génnee ci ki nga xam ne moom mooy nuurul akwaan kooku moom waxuñu ko waaye ku dul moom xamoo akwaan yooyu nu ñu toll xamoo akwaan yooye seeni dayoo nañu toll nee na yonent bi mooy leeru akwaan yi yan akwaan almutakawwinati yi di aji formé wu ci lu lu ko formé leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax bi leen yàlla bindee ba noppi daf leen a roosee leeru yonent bi sallallahu alayhi wa pour ñu mën a jàppaloo mën a nekk lenn mën a nekk benn kawnu maanaam kawnu bu ci nekk dafa bari ay ay yu ko tàqale dafa bari ay cër yooya nag ci leeru yonant bi la ko sunu borom nandal pour mu mën a jàppale loolu moo tax yu bare baree bare ci mbir yi sunu borom daf koo nandal ci leeru yonant bi ndax moom mooy nuurul akwaanil mutakawwina al aadami baatu al aadami danañ ci ñëw waaw su ko defee bu ñu jëlee baatu xalam xalam bi nga xam ne mooy bind dogal yi xam nañ ko muy bind ca lawxul mahfuuz sunu boroom nàndal na ko ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juróom-ñaari nàndal juróom-ñaari nàndal yoo xam ne nàndal gu ci nekk dafa nekk saqyan aziman nàndal gu mag moom alqalam moo tax leeru alqalam ci alqalam ci boppam leeram su bëbboon àdduna atanu ko bu dee li ñuy wax it muy ndox moom itam suñu borom daf koo nandal ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sabaa marraati juróom ñaari yoon. am ni mu ko nandalee xalima bi mais lan moo tax ndox man fee nekk te àdduna tukkiwul parce que ndox nandal nañ ko mais nandaluñ ko ci leeru yonent bi ba mu mandi comme ni alqalam mandee ci leeru yonent bi ndax alqalam dañ koo nandal juróom ñaari yoon yoo xam ne genn nandal gu ci nekk daf dañ koo nandal ba mu mandi. bu dee ndox nag luñ ko ba egg foofa ne buñ ko nandaloon ba yegg foofa kon àdduna du àttan ndox waaw bu dee al moom itam suñu borom nandal na ko ci leer yonent bi ñaari yoon ba koy commencé bind ak bi ko bindee ba yeggal bu dee aljanna suñu borom nandal na ko ci leer yonent bi ñaari yoon ba mu koy commencé bind ak ba mu bindee ba yeggal bu dee yonent yi ak mboolem xeet yi mboolem jullit ñi ah, suñu borom nàndal na leen juróom-ñetti yoon ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Seydi El Hadji Malick nee na laqad saqaana xaaliqul ibaadi samaana marratin bi nuuril haadi nàndal gi ñu sunu borom njëkk a nàndal ci leeru yonent bi ma nga amee woon ca aalamul arwaax ba yàlla bindee leeru leeru yi leeru ruux yi ci boppam la yàlla nandal leer la yàlla nandale leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bind leeru ruux yi nandal nandale ko leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy benn yoon ñaareelu nandal ga di ci taswiir arwaax yi di leen defar booba nandalaat na ruux yi ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñaari yoon a ngi noonu ñetteelu nandal gi mooy ba yàlla defaree ba noppi nag janoog ruux yi ne leen alastu bi rabbikum qaalu bis boobu jëkk mu leen di wax alastu bi rabbikum xanaa du may seen borom nandal na leen ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñeenteelu nandal gi mooy bi ñu bi mu ñuy defar ci sunu biiru yaay yi di ñu melal di ñu def nit di génnee bët di génne nopp di génne muscle yi mafaasil yi nandal nañu ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juróomeelu nandal nañu ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñuy juddu war a jóge ci sunu biiru yaay yi ñëw fii ci àdduna nandalaat nañu ci leeru yonant bi sallallahu alayhi wa sallam loolu sax moo tax boo juddoo rek xam ne giriñ la ñuy lekk da koy xam nandal googu mu ñu nàndal ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñuy juddu loolu moo tax ku ci juddu rek buñ la joxee ween gimiñ ngay joxe ngay nàmp ndax da ngay xam ne gimiñ la ñuy lekke mais nandal giñ la nàndal ci leeru yonent bi ci moment boobu moo tax nga xam loolu waaye jëkk ñuy sex sunu weenu yaay yi nandalaat nañ ñu ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mottali xikma boobu kon euh, juróom-ñetti yoon lañ ñu nandal ci leeru yonent bi muy waqad saqaana xaaliqul ibaadi samaana marratin bi nuuril haadi noonu la ko Seydil Xaaji Malik waxee kon yonent bi mooy nuuril akwaani mooy leeru mbindeef yi leeru Euh, akwaan yi kawnu yi leeru mbindeef yi almutakawinati yi di aju formé wu aadami ba di askanoo ci xeetu doomu aadama leer gi nga xam ne dafa as askanoo ci xeetu doomu aadama al aadami xam nga yàlla yim bind ay xeet la am na xeet wu ñuy wax malaaka mais nuur doo du nuuran malakiyan am na xeet wu ñuy wax jinne mais leer gi du du du nuuran jinne am na loo xam ne bàyyi ma la mais leer gi du nuuran bahimi yan waaye kii da am na lu ñuy wax doomu aadama te dara gënu koo tedd ci li yàlla bind ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax doomu aadama ci boppam tedd sell loolu moo tax ñu askanale leer gi ci doo xeetu doomu aadama muy leer goo xam ne kaka am ba ñu nàndal si lu ne luy doomu aadama lu dul doomu aadama loola doomu aadama la moo tax ñu ne que al aadami mooy leer ga askanoo ci xeetu doomu adama jublu ci yonente yàlla aadama ci boppam xeetu doomu aadama al aadami ndax doomu aadama ci boppam adduna bi yépp daal dafa dencu ci moom ci doomu aadama doomu aadama mooy adduna wala boog doomu aadama moo ëpp sax adduna waaw doomu aadama boo ne mooy adduna da nga koo tuutal wala da nga koo tuutil soo nee nag moo ëpp àdduna wax nga dëgg doomu aadama li mu symboliser ëpp na àdduna loolu danañ ci ñëw indi ci ay leeral moo tax ñu ne doomu aadama ak ni noonu mu tuutee noonu ak noonu mu doyadee noonu dafa nekk nusxa musdawiya comme ni ko sayidi Muhammadinil Mustafa si waxe xafisahullahu wa ayadahu wa raa nee doomu aadama nusxa musdawiya la nusxa la boo xam ne ñaar aka bokk fii ak fële am nusxa am nusxatul ula mooy doomu aadama yaram la loo xam ne màdd la beneen nusxa bi mooy loo xam ne jawhar la te muy ruux nga xam ne du lu ñuy làmb di ko daj moo tax mu nekk nusxatan sufliya wa nusxatan ulwiya doomu aadama lool la moo tax mu ne boo xoolee bopp doomu aadama ak noonu mu wërngaloo noonu moo symboliser falak bi dafay nataal dafay melal falak bi ni mu wërngaloo noonu anwaar ya fa nekk nekk fa lataif ya fa nekk nekk fa yëpp denc ci falak bi bopp doomu aadama noonu la mel bopp doomu aadama noonu la mel nee na doomu aadama bopp ba am euh, juróom-ñaari yax yoo xam ne wala boog doomu aadama am juróom-ñaari yax yoo xam ne mooy yem yu sujjóote nga xam ne moo symboliser semaine bi kon ay bis moom dugg na ci doomu aadama falak bi ci boppam ànd ak seen i biddiw ak ya cay xew yëpp dugg na ci doomu adama te mooy mooy bopp ba mais ay bis gi ci boppam moom itam dugg na ci doomu aadama mooy al a'daa'u sab'a ñaari noppi doomu aadama ñëw jël al mashriq wal maghrib cëram yooyu nga xam ne mooy al aadaau sabaa dem jël ad daraari sabaa nazma daraari lahu yallaahu yallaahu ah na gannaawu doomu aadama am ñaar fukki yax ak ñeent mu yóbbaale ñeent fukki waxtu mu yóbbaale ñaar fukki waxtu yi ak ñeent bis bi ci boppam léegi dugg na ci biir doomu aadama waaye waxatuñ bis bi waaye ay bis gi sax moom itam dugg na ci doomu aadama waaw nee na ñaar fukki miskil yi mu am ñaar fukki mafaasil yi ak juróom-ñett yi doomu aadama am jël na al manazilul qamar yi nga xam ne mooy vingt-huit yi mu jël ko nee na sidit yi doomu aadama am am yi ci yëngu ak yi ci dul yëngu yépp biñ ko compté muy trois cent soixante-cinq muy at mi léegi at mi dugg na ci biir doomu aadama xoolal doomu aadama li mu yóbbaale lépp bis bi dugg na ci doomu aadama ay bis gi dugg na at mi dugg na ruux gi di aalamul malakut dënn bi di lawxul maxfuus ndax li muy am ci xam-xam yépp foofa lañ koy denc mu représenté al lawxul maxfuus moom dënnu doomu aadama kanamam di bëccëg gannaawam di guddi ñeenti anaasir yi muy muy al anaasirul mooy ñeenti fusul yi am ci jamono muy noor ak nawet ak lool leeg cooroon doomu aadama représenté ko nee leeru bëtu doomu aadama mooy leeru biddiw yi moo moo taxaw taxawaayu leeru biddiw yi nee na doomu aadama mooy dënu neena muuñ ga mooy melax nee na jooy ya mooy taw nee na doomu aadama mooy ngelaw nee na doomu aadama mooy gàncax gi sax ci kaw suuf ñuulaayu karaw ga mooy guddi yaxi doomu aadama di montagne yi ñu samp ci kaw suuf deretu doomu aadama di géej yi yàpp doomu aadama di suuf si moom doomu aadama mooy lubaabu hadihi lahwalim moom mooy mooy àdduna bi yëpp parce que yëpp dafa dafa duggaat ci biir doomu aadama nga xool jëmmam ji li muy tuuti tuuti dafa moo représenté yëpp moo tax doomu aadama boo ko tasee mu nekk boo ko tasee ëpp na àdduna mais noonu mu tuutee noonu waaye boo ko tasee rek ëpp na àdduna gis nga am na weeru bu sa baali lu muy ràbb di ca dugg loola wax nañ ne boo ko tiree tàllal ko juróom-ñaari mètre lay doon wala am ñu wax sax ne dana ëpp loolu te pourtant boo ko xoolee noonu mu tuutee nga xam ne bu la réeroon sax pour nga gis ko problème la ak ni mu tuutee te boo ko tasee mu ëpp loolu noonu la mel doomu aadama noonu la mel moo tax waykat bi wax ne ida kunta taqra'u ilma alxurufi fa shaxsuka lawxun bihi asturu wa timthaalu daatika unmudajun li kullil wujudi liman yubsiru la in kaana jarmuka jarman sagiran fa fiikam tawa alaalamu al akbaru fala darratun minka illa gadat biha yuuzanu alkawnu bal aktharu wala qatratun minka illa wa fi yanaabici asraariha abxuru la anta alwujudu wa kullu alwujudi wa ma fiika mawjudun la yuxsaru wa kullu alwujudi ida qistahu ilayka fa daaka huwa al asgaru kon gis nga doomu aadama ni mu tuutee waaye ni mu rëyee gis nga doomu aadama ni mu xate waaye ni mu yaatoo kon leeru yonent bi sallallahu alayhi buñ koy askanale naan al aadami yow ngay xeetu doomu aadama dafa fekk nga xamoo lan mooy xeetu doomu aadama ndax tànn gi yàlla tànn yonent bi def ko doomu aadama rek loolu doy na sëkk xeetu doomu aadama doy loolu doy na leen teraanga moo tax wala qad karram naa bani aadama wala qad karram naa bani aadama yaatu na yaatu goo xam ne bari na bari goo xam ne eh, détails yi leson bi attanu ko ndax dafa bari kon nee na yonent bi mooy nuuril akwaani mooy leeru mbindeef yi almutakawinati yi di aji formé wu mbindeef yi formé wu yépp nekk mbindeef ñu formé leen ñu formé wu nekk mbindeef yonent ba seen leer yàlla maa ngi lay ñaan nga julli ci moom al aadami yi leer ga nag daal di askanoo askanoo ca sunu maam aadama astaghfirullah mu askanoo ci xeetu doomu aadama boo leer goo xam ne du leeru malaaka borom malaaka du borom leer goo xam ne jinne du borom waaye borom leer ga du ci xeetu doomu aadama la bokk mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy saaxibil xaqi rabbaani mooy saaxibil xaqi rabbaani saaxibil xaqi rabbaani nag dafa am ay ixtimaalaat moom itam saaxibil xaqi mooy xaritu yàlla alxaqu huwa subhanahu wa taala ya alxaqu mooy dëgg yàlla mooy dëgg ñu ne saaxibil xaq yonent bi mooy xaritu yàlla loolu ci benn benn la ci dégg nii beneen déggin ba mooy yonent bi mooy saaxibil xaq mooy boroom dëgg ñu ne luy dëgg gi ñu ne mooy alquraanu wal waxyu alquraan bi ak waxyu bi mooy dëgg gi yonent bay boroom mooy saaxibul mooy saaxibul xaq wala saaxibil xaq ñu ak lan ñu ne mooy saaxibil xaq mooy borom maandu yonent bi mooy boroom maandu ndax moom dafa yéeg maandu ba ca njobaxtalam bu dee dëggu daf koo yéeg ba ca njombaxtalam moo tax keroog ba muy seddale mu séddale ba noppi am ku nekk maandu woo yow Muhammad noonu la ko waxee ne ko maandu woo yonent bi sallallahu alayhi man suma maanduwul kan mooy maandu ndax yàlla daf may wóolu ba yónni ma ci yéen te yéen du ngeen ma wóolu ndax yàlla daf may wóolu ba yéen yónni ma ci waa kaw suuf te yéen du ngeen ma wóolu kenn ci saxaaba yi jóg ne yonent bi may ma ndigal ma ma ma rey ko yonent bi naka damay bañ nit ñi di waxtaane ne Muhammad mi ngi rey ay saxaabaam mu ne waaye kii yàlla dana génne ci moom aw nit woo xam ne danañ jàng alquran de waaye alquran ji du paase seen put pour yegg ci seen xol yaqra'uuna alquran wala yujawizu xanaajirahum yaa yonent bi ne su ma leen fekkee danaa leen rey mu ne ndax ku leen rey yàlla dana la fay aw yiw moo tax keroog ba mu taxawee moom yonent bi ne allahumma barik lana fi shaamina wa fi yamanina ne yàlla maa ngi lay ñaan nga barkeeral ma sunu shaam ak sunu yaman am ku nekk wa fi najdina ak sunu najd xamoo ne wahabi yu ne najd lañ génne ñu ne ak sunu najd yonent bi baamuwaat ñaan gi boolewu ca nag di ne allahumma barik lana fi shaamina wa fi yamanina yàlla yal na ñu barkeelal shaam yal nag ñu barkeelal yaman moo tax Cheikh Ahmed Tidiane bëggoon a tuxu dem shaam ba awliya yi nekkoon faas ñoo ci mujj lang jàpp si mujj sax di def ay ñaan ba yonent bi jox ko ndigal ci mu toog faas ba faas la mujj wuyu jee boromam mais dafa ne woon moom dafa pare woon pour tuxu dem shaam ndax allahumma barik lana wa fi yamanina ñetteel bi yoon yonent bi ne allahumma barik lana fi shaamina wa fi yamanina waaj ne ko wa fi najdina yonent bi ne ko foofu la seytaane di feeñe te wahabi yu ne yi najd lañ génne kon nag loolu ishaara la waaw loolu ishaara la kon mu ngoog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy saahibul xaqi mooy xaritu yàlla mooy saaxibul xaq mooy borom dëgg dëgg gi mooy alquran ak wax yu mooy saaxibul xaq mooy borom maandu mooy saaxibul xaq mooy borom dogu yii yépp ay maanaa la ci waaye maanaa yooyu yépp buñ ko toppatoo benn lay nekkaat waaw ñu ñëw bokk ci baatu ar rabbaani yonent bi mooy saaxibil xaq mooy borom dëgg ga ar rabbaani baatu ar nag. abu ubayda wax na ni du arab baat bi du arab kunu rabbaniyina sayidi muhammadin il mustapha si xafidahu llahu wa ayadahu wa raa wax na ne baat bi sariyaaniya la loolu it la abu ubayda wax wax ne baat bi sariyaaniya la ar rabbaani mooy alaalimul muallim mooy ku xam tey xamle mooy alaalimul aamil mooy ku xam tey jëf di jëfe lim xam mooy mooy alaalimul faqih mooy ku xam te dégg kookoy yonent bi kooku koy loolu yëpp boo ko boolee mooy yonent bi comme nañ ko waxee woon ci bind bële kon mooy saaxibil xaqi mooy borom dëgg ga ar rabbaani te xam tey jàngale te xam tey jëfe te xam te dégg nee na mooy albarqil astai albarqil astai bi muzunil arbaaxil maaliati li kulli mutaaridin min albuxuuri wal awaani nee na yonent bi mooy albarqil aftaay albarqi mooy melax ga al aftaay ga di aji jolli melax gu jolli ga neena mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan moo tax mu ñu mu bi foofu albarq melax parce ko yonent bi sallallahu alayhi wa bi yàlla di yónni yonent yi yonent yi di toftaloo boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo moo moo moo jolli yonent yi di ñëw di ñëw ba yonent yàlla isa ñëw mu am benn fatra diggante yonent yàlla isa ak yonent yàlla muhammad foofu la melax gi nëbbuwaat parce que melax danaan tay nëbbuwaat tay di njëkk ji mooy yónneeg yeneen yonent yi mooy yónneeg yeneen yonent yi ba yonent yàlla isa ñëw mu nëbbuwaat ba ak yónnantam jot mu neeti tayyi te du nëbbuwaat ba ilaa macha allah kon loolu yonent bi def noonu loolu moo tax mu melal ko ci albarq mu nag albarq al yi mooy melax ga jolli lu mu jollee moo tax mu def ci baaul musaaxaba mooy melax ga jolli bi muzuunil arbaaxi andi koom-koom ya muzuun daf koo indi ci jamul kasra parce que niir ya dañoo bari mooy melax ga jolli bi muzunil arbaax yi ànd ak niiri koom-koom ya niir wi lan la mu ne mooy alquran wal waxi wala alquran wa sunna mooy alquran ak sunna mooy niir wi nga xam ne yonente bi mu jollee nekk melax niir woowu la melaxal almaali ati niir wa di aji feesal li kulli mutaaridin ñeel bépp aji gaar minal buxóori ca géej ya wal awaay nii ak ndab ya seet te te yonente yi sallallahu alayhi wa sallam yonente leen day duy ay géej lañ ay géej lañ yonente leen duy aarifuuna yi ay géej lañ yonente bee leen duy bañ fees kenn ku ci nekk ak na nga kenn kenn ku ci nekk ak na nga peese wal awaani mooy la mooy ndab yi. yaa yu ndaw yi ak faalixuuna yi ndax nit ñi ay catégorie lañ am na ñoo xam ne ay géej lañ am na ñoo xam ne ay dex lañ am na ñoo xam ne ay déeg lañ am na ñoo xam ne ay ndab lañ ay paan am na ñoo xam ne ay siwo lañ am na ñoo xam ne ay kopp lañ am na ñoo xam ne ay wit lañ am na ñoo xam ne ay kumaat lañ nit ñi ku nekk ak na nga toll waaye ku ci comme ci mën a doon yonent bi moo la duyal ca niiru koom-koom ya kon mu ngo kon yonent bi mooy albarqil astaay mooy melax ga jolli ga bi muzuunil arbaax yi ànd ak niiru koom-koom ya almaali ati niiru koom-koom ya di aji feesal li kulli mutaaridin ñeel bépp aji gaar minal buhuuri ca yonent ya minal buxóori ca aarifuuna ya minal buxóori ak awliyaa yu ndaw yi wal awaani ak saalixuuna yi wal ak ammatul mu ngoog kon la ci am na ay ixtimaalaat yu bari beneen ba mooy wali yu nu mu toll ak nu mayam toll bi sallallahu alayhi wa sallam ak melaxam moo jolli ci ruuxu waliyu boobu ak yaramu waliyu boobu ba mu def la muy def yonent nu mu toll yonent melaxu yonent bi moo melax ca jëmmam melax ca ruuxam moo tax mu indi fii beneen ixtimaal mu ne wa yuxtamalu ann al muraada bil muzuni al arwaaxu ay arwaaxul anbiyaai wal awliyaa mooy leeru yonent bi sallallahu alayhi wa dana dana bari ci waliyu ba waliyu ba toll foo xam ne la muy def ak na muy mel na leeru yonent ba jollee ca moom na leeru yonent ba toll ca moom moo tax muy def na muy def la muy def mel na muy mel xam lam xam bu dee ab yonent itam noonu kon jow jawharatul kamal tey foofu lañ ci taxawee waaye da seetlu ne da day julli ci yonent bi day julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye day waxaale yonent bi mooy kan nu mel loolu moo tax boo ko jàngee juróom-ñaari yoon rek mu teew parce que day jàngale yonant bi nu mu toll yonent bi nu mu mel doomu aadama mi nga doon xeeb jawharatul kamal xamal na la valeur doomu aadama ndax doomu aadama mënu la ñàkk valeur ndax yonent bi mënu nekk doomu aadama ba noppi doomu aadama di ñàkk valeur ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yooyu yëpp boo ko boolee da xam ne jawharatul kamal bu la neexee nga lancé ko defi ku la neex amal diplôme bu la neex jàngal arab ku la neex bindal bi bu mel na ne jawharatul kamal soo ko mënul bul di nga parce que ni mu melale yonent bi yow yaa ngi julli ci yonent bi mais yow yaa ngi tagg yonent bi jawharatul kamal ëpp na ëpp na gàmm ëpp na gàmm ëpp na gaaw ndax almutaxaqiqati rek ku bëgg a wax la mu boot lépp ci ay maana doo fa jóg albartil astai bi muzunil arbaaxi ku bëgg a wax la ca nekk ci ay maana doo fa jóg kon na su ko defee loolu lu muy teg nee na wa nuuril akwaani yal na yàlla julli ci leeru mbindeef yi almutakawinati yi di aji formé wu al aadami leer ga di askanoo ca xeetu doomu aadama albark yàlla yàlla julli ca leer googee nga xam ne mooy melax ga al astaay bu jolli ba albarkil astaay ba di aji jolli melax ga di aji jolli bi musunil arbaax yi ànd ak niiru koom-koom ya ñu ne niir wi lan la ñu ne mooy alquran ak sunna ñu ne koom-koom bi lan la ñu ne xam-xam ba ca bàyyi ko di jëriñ jaami yàlla yi mooy albarqil astaa yi melax gu jolli ga bi musunil arbaax yi ànd ak niiru koom-koom ya niir ya nga xam ne almaali at yi mooy feesal li kulli mutaaridin ñeel bépp aji gaar minal buxóori ca géej ya ñu ne géej ya yan la ñu ne ñooy awliya yi ñooy aqtaab yi ñooy aarifuuna yi mu ne almaali ñooy feesal minal buxóori ca géej ya wal awaani ak ndab ya ñu ne ndab yaay yan ñu ne mooy awliyaa yu ndaw ya mooy saalixuuna yi mooy amatul muminin kon loolu mooy sunu bindu tey foofu lañuy ñu taxawee bu ëllëgee ñu continuer ci jawharatul kamal bi ndax foo tibb rek jawharatul kamal jumla boo boo tibb rek dafay làmb lu baree bare bari fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqin moo tax boo ko jàngee te sa ruux yëg yonent bi sa xol yëg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo koy jàng léeg-léeg booy wasifa sax booy jàng jawhara doo bëgg a gaaw a yeggal ndax jawhara bi dafa neex fa tabaarakallahu bu dee nag da di koo xam ne sa sa conscience mi ngi sukuraat ndax am na ñoo xam ne wahabi yu nay rey leen seen conscience bàyyiloo leen seen euh, seen seen tariqa ñu dem topp ay ay ndax alal alalu àdduna ndax alalu àdduna nga xam ne teguñu ko ci xam-xam bu wér kooku boo doon jàng jawharatul kamal ba déwén itam dara lu yëngu ci moom ndax innaka laa tusmiu al mawta wala tusmiu wala tusmiu summa duaa ida wallaw mudbirin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كالحائط بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الاقوام صراطك من الاسخام اللهم صل وسلم على طلعه الحق بالحق الكنز الاعظم افادتك منك اليك احاطه نور متلسم صلى الله عليه وعلى لي صلاة تعرفنا بها يا